Adama Mbengue euh, di rafetlu ànd bi nga ànd ak ñun tey ci ganuk suba gi. ñu lay fay di rafetlu di waxak ak euh, auditeur ak euh, auditrice yu Rewmi FM ak ñu ñu si seen bi tam. yaay njiital ADHA di kuréel googu ñuy wax action pour les droits humains et l'amitié li ñuy waxtaanee bokk na ci mbëkk mi ak li nga xam ne mooy ay jeexitalam mu ngi jeexal jeunes yi tey jii nag seen seen kuréel gi yéen ban gis-gis la ñu am ci bileb sañe di jeexal suñuy ndaw. waaw xam nga euh, dafay metti sax ñu ñëwaat si parce que yàgg nañ si wax te histoire daf ñu jox raison parce que en deux mille dix neuf dix huit dañoo defoon benn rapport rapport boo xamante ne sur la situation des jeune la woon te si rapport boobu noonu lu ñu si jàngatoon ba. partagé ko lu ñu waxoon moom mooy euh, enquête yu ñu defoon soixante quinze pour cent des jeunes yu ñu enquêté euh, dañoo bëgg génn dëkk bi Euh, génn boo xamante ni que ça soit muy jaar yoon wala ñu def loo xamante ni jaaru yoon maanaam de manière irrégulière naa loolu lu muy tekki moom mooy euh, si ñeent ndaw ñett yi dañu bëgg a génn te ñett yooyu noonu amuñu espoir te fàtte woon naa ko wax si nasaraan si ñett yooyu noonu boo xoolee un point deux dafa nekk jeunes yoo xamante am nañ seen master ba pare maanaam jàng nañ jàng bu sore mais ñoom ñëpp dañoo ne bu toogee fii ni duñu tekki dégg loolu noonu moo tax ñu waxoon ah, nañ ci def communiqué nañ si def ay rapport ñu publier ko ñu ko war a publier ñu doon def ay activité pour jéem a sensibiliser sensibilisation boobu noonu defuñu ko ñun rek dañoo ñëw invité offrir les directions wala kuréelu état bi comme ça ñu wax ak ndaw yi ndaw yi exposer leen seen problème mais malheureusement si yooyu noonu yëpp ñu def gisuñu si ay jéego yu bëri maanaam dafay mel ni daal euh, nguur bi dégluwuñu woon si loolu daal. Mhm. te malheureusement l'histoire nous a donné raison te lu ñu joxe raison moom mooy euh, phénomène migratoire bi chaque année période yi nii dañ siy wax rek di si waxaat. mu amaat ay nit yu bëri wala ay ndaw yu bëri yoo xamante ne dañ ci faatu. mais xam ne fa la ñuy bàbbeeku di dem ñoom it danoo am seen ay problème firnde li mooy lu bëri ci ñoom dem nañ mais ñu leen di euh, waaj a am na vol sax bu ñëw ñu taxaw ci wàll wi ndax euh, xibaar yi mujj mooy suñu ay kilifa euh, jël nañ décision ngir rapatrier lu bëri ci suñu ay naataango sénégalais wol bu njëkk bi sax egsi na fii ci ndakaaru ndax tey ji ànd ngeen ak boobu lépp dogal ñoom ñu jëla waaw xam nga dafa am lu nga xamante ni ak ak yelleefu doomu aadama dafa am loo xamante ne dañ ko signé ratifié ko wala ay dëkk yu bëri depuis charte fondamentale maanaam si charte yu nga xamante ne moo njëkk si déclaration universelle des droits de l'homme ak yeneen ak yeneen même ba si lu ñuy woowee euh, le droit économique socio-culturel des migrants en situation irrégulière nekkul rek ni da ngay dem benn dëkk rek amoo fa droit amoo fa liberté même bu nekkee ni yow tu en situation irrégulière am nga sa àq ak yelleef mhm. maintenant comme ni ñu koy waxee euh, am na loo xamante ni muy Union européenne muy suñu dëkk tamit am na loo xamante ni dañoo def leen leen neex rek noonu lañ koy jàppee lu tax ñu jàppee ko lool parce que euh, tey bu nekkee nit même si wax nañ ni que seen nombre bu nga xamante ni ñoom la ñu accueillir ci camp yi camp yi mënatu accueillir loolu nombre yooyu mais warul te ñu ñëw yàkkamti gaawantu seen procédure te loolu noonu lépp luy. Euh, organisation défense des droits de l'homme muy fii nii muy tamit euh, foofu noonu di Espagne wala yeneen dëkk si Europe dañ koy ñaawlu parce que respecté wuñu droit de un deuxièmement procédure bi ñu def dañ ko dañ koy taf tafe bu ñu xamee ni yow dëkk bi nga jóge dès lors que dëkk boobu noonu signé na da joxe na accord am dañ lay rapatrier donc muy ñaari dëkk ñoom signé ay ay ay accord mais euh, quand même dëkk yooyu on peut dire que tamit Euh, ñu ngi commencé saturé parce que li bàbbeeku di dem dafa bëri. Euh, fan yee passé boo mu amee ay ukrainien yu dugg biir Europe est-ce que dañ leen delloo seen dëkk. xëy na di nga wax ni guerre moo tax n'est-ce pas mais est-ce que bu ñu xool si ak ak yeleefu doomu aadama nañ ñoo def discrimination boobu noonu wax comme lu ñu waxoon si global compact sur la migration ak global compact sur j'ai di catégorie j'ai di sélectionné maanaam da ngay jógee dëkk boo xamante dañ koy jàppee euh, dëkk boo xamante ne bu stable la ñu ne yow migrant économique nga ñu ñëw jël keneen koo xamante ne dañ ko persécuté te fii ne am na ñuy persécuté parce que am na ñoo xamante ni xëy na seen orientation politique moo tax xëy na ñu daw Babette parce que exactement nan nan lañ war a def ak ñoom dañ leen war a régulariser wala naka lañ mën a def parce que tamit euh, ñu ngi fay bëgg a bëri euh, peut-être di envahir ñi nga xam ne ñoom lañ fekki waaw lu ñu war a def dafa bëri benn bi mooy lenn moom mooy euh, gis nga ambassade yu nekk fii ambassade yu bëri ñu ñoo leen di fay ñoom ñooy fayal seen ambassade n'est-ce pas ñaata xaalis la ñuy joxe pour am lu ñuy wooye sésame bu ñuy wooye visa te duñ la delloo sa xaaj duñ la jox euh, lii di visa bu nekkoon dañoo wax critères yu leer yow nga jóg dem déposer rendez-vous bu ñu lay jox du dem ba ay quinze mois wala dix mois di yàgg ñu wax la boo defee di def nii di nga am sa visa ñu wax la comme politique migratoire bu Canada nga xamante ni dañ ko ubbil ñëpp wax la lii la ñu soxla si profil boo ñëwee suñu dëkk di nga ñëw liggéey ñii nag boo ko amul critère bi ak bi ak bi duñ la nangu. Mm-hmm. loolu mooy lu leer wala xaalis boobu noonu ñuy jël sax ñu delloo la ko lool mooy yo deuxièmement mooy ñu nga xamante ni dañoo dem foofu noonu ñu xool yan genre nit lañ est-ce que c'est des personnes yu nga xamante ni dañ leen di persécuter wala persécuter wu ñu leen bu nekkee dañ leen persécuter ah loolu euh, convention Genève lu wax moom mooy c'est une obligation obligation la ñu ñëw accorder leen wala ñu téye leen foofu beneen bi mooy migrants yi nga xamante ne nag c'est des migrants entre guillemets économiques même si ñun ñu terme boobu ñooñu ñu jéem a xool contrat saison yi nga xamante ne commencé wul léegi moo ñu commencé woon depuis temps wu euh, régime bi passé avec euh, le euh, maître Abdoulaye Wade ñoom ñu jël leen foofu ñu ñëw liggéey si tool yi bu fa liggéeyee nag ba def fa benn six mois wala def fa benn diir xaalis boobu noonu ñuy gagné bu ñuy ñëw ñu bañ a ñëw ak loxo moo gën nga ñëw fii nii ñu ne dafa am ay kuréel yu lay accompagne ñoom ñu joxe xaalis bu bëri xaalis boobu noonu xëy na ñan yi dañ ko jot wala xëy na duñ ko jot ñenn yi dañ leen financé te buñ leen financé euh, jox leen xaalis en liquide wala matériaux lañ leen jox ñu jaayaat ko jëlaat yoon donc loolu du benn solution non seulement dañu am appui psychologique nu ñu ñëwee c'est comme si société bi daf leen délaissé daf leen ñëw won leen ni échec ñenn ñi sax dañ ci am problème psychique plus tard donc ñun lu ñu jàpp mooy loolu du solution. Mm -hmm. d'accord de solution. Euh, ci ci wàllum koppar. ñuy faral di jagleel jeunesse bi euh, te waa tugal di ko def sax ci lañuy ñuy taxaw tuuti ndax at yee weesu rek euh, amoon na coow li mu jur ba li ca xew yépp xew ci. yaakaaroon itam aide international bi ñu bi leen di jagleel lu ci ëpp ngu suñuy nguur dañ koy sàkkal pexe. waaw xam nga <laughs> bon ñun li ñuy wax moom mooy chaque fois dañu faral di wax ni que malgré dispositif yépp bu Frontex. mettre en place maanaam union européenne pour signer ay coopération mun naa si lim yenn rek parce que sànq jotuma woon données yi si si nasaraan mm-hmm. benn moom mooy projet européen bu ñuy woowee euh, bu nga xamante moo ñuy daté le 4 août 2023 bu ñu woowee partenariat opérationnel conjoint boobu benn montan wu neuf millions d'euros la boo xamante ni war na durer trois ans beneen bi nekk benn euh, beneen boo xamante ni peut-être appuyé nañ ko muy Sénégal tamit ay initiative yu mu muy décret deux mille vingt et un cent soixante douze du vingt sept janvier deux mille vingt et un bu nga xamante ne moom moo porté création wu conseil national Euh, pour l'insertion et l'emploi de la jeunesse nga xamante ni gisuñu njëriñam ba léegi ni mm-hmm. beneen bi nekk benn stratégie bu comité interministériel de lutte contre euh, la migration bu nga xamante ñooñu ko tenir en compte euh, le vingt et un septembre deux mille vingt pour ñëw si peut-être anticiper benn question bu war a pour wax ni que am na ay experts yu tasante woon avant depuis le 21 septembre 2022 te lool moo tax après mu jur stratégie nationale de lutte contre la migration mm-hmm. irrégulière bo nga xamante ne lool c'est pour dix ans euh, durée bi ñu dugalaat ci xaalis bu bëri beneen bu ma waxoon sànq ci nasaraan euh, mooy benn soutien boo xamante ni la jeunesse sénégalaise la ko Union européenne jagleel mooy nekk ci benn montan wu dix millions d'euros maanaam six virgule six milliards de francs fa mm-hmm. donc pour citer rek yooyu noonu rek sans pour autant tamit ñëwaat si deux mille cinq ba deux mille dix neuf am na lu toll deux cent milliards de francs CFA bu nga xamante ni koppar la bu ñu dugaloon si la migration benn bi pour restriction la maanaam pour garder suñu code bi beneen bi nag si aide au développement la maanaam xool ndaw yi nan la ñuy mën a amee xëy nan la ñu mën a bu ñu amee xëy ñu jox leen ay fonds appuyer leen pour ñu mën a ñëw am ay lendemain yu meilleur fii nii mhm. mais malheureusement xëy na suñu naataangoo bu nga wax noonu dafa juumoon si chiffre en réalité moo tax ñu jëloon loolu pour mënoon ko xëy na téye mais daal euh, lu ñu mën a tënk rek mooy lenn mooy gis nga fonds yi plus muy am tant que wuñu tant que saytu wuñu xaalis boobu noonu fan la dugg te ñëpp xam nañ ko parce que y benn rapport boo xamante ni qui a été <laughs> en deux mille dix neuf et publié même boo demee seen daan di ko gis rapport yooyu noonu lu muy wane mooy am na structure nationale internationale des organisations de la société civile aussi des organisations internationales yoo xamante ne laale nañ si xaalis boobu. Mm-hmm. maintenant ñun du suñu cër ñu naan am na détournement de fonds wala détournement d'objectif pour lire rapport lu mu wax mais ñun luñ si wax moom mooy il faut que ñu auditer am nañ fa ay corps de contrôle yu mucc ayib ñoo xamante ni c'est si ci ci Afrique bi wala si monde bi. Mhm. muy IGE yeneen ak yeneen ñoom ñoo war a seetu loolu xool ces directions la xool ces organisations nationales ak internationales xaalis boobu noonu fan lañ ko dugal. parfait parce que mënuñu ñëw euh, gis ni que xaalis boobu moo ñu fi yeneen xaalis du ñëw yeneen fonds tamit du ñëwaat accord bu ñu signé <laughs> yàggul rek avec euh, Union européenne euh, Espagne ñi pour rapatrier c'est beaucoup d'argent yu ñëwaat. te teewul ni que ñu dénombré ni que le nombre de migrants dafay gën di yokk muy ay chiffre record yoo xamante ni boo ma permettre rek mën naa si ñëw rapidement mhm. euh, chiffre record yooyu noonu lu muy wax moom mooy euh, lu dale euh, le premier janvier ba le quinze octobre dafa toll si vingt trois virgule vingt trois mille cinq cent trente sept migrants yu nga xamante ni ñoo dugg feneen rek waxuma sax ita kiiwu lamp feneen di îles Canaries mhm. waxuma sax côté Italie bi ñu nga xam ñoo jógee Tunisie dem mais juste et îles Canaries comparé en 2006 nga xamante ni si 2006 c'était ils étaient au, au nombre de huit mille cinq cent soixante et un mhm. donc si lu ñu si saytu tamit mineurs yi ñooñu tolloo si lu ñu lu ñuy woowee cent mineurs par jour ñooy dugg ñu toll actuellement de plus de quatre mille mineurs yu fa ne si archipel donc yooyu noonu yëpp boo ko saytoo mooy wane ni que daal euh, muy fond di dugg ak yooyu noonu yëpp je ne pense pas muy solution ba balaa ngay tabax dara il faut nga def état des lieux mm-hmm. xool ndax lu nga def loon ndax jaar na yoon wala jaaru yoon bu jaar yoon nga dindi ko nga xool amélioré. kuréel yu mel ni yéen euh, di teewal euh, ñi nga xam ne ñooy migrants yi ci seen àq ci seen yelleef waaye it ñu promouvoir leur droit euh, ku ci mel ni sa naataango Boubacar Seye moom saa yoo ko laajee naan nañ convoquer les états généraux pour parler de l'immigration waa aada ñoom lan lañ wax lan lañ gis ni mooy saafara boo xam ne buñ ko defee pour de bon fléau bi dina bu deñul tamit dina wàññeeku bu baax parce qu'on puisse dire wàllum euh, immigration ci nit la la bokk dem di dikk bi euh, loolu moom c'est c'est c'est de la nature humaine mais yéen ban solution ngeen am. mooy d'abord def l'état des lieux. état des lieux mooy nga seetu nga xool lu nga teg fii nii la moo si dox nga jëmale ko kanam lu si doxul nga dindi ko état des lieux boobu noonu moo nga mën a càmbar bu baax. càmbar boobu noonu nag lu muy wane mooy lenn xool de deux mille cinq à beaucoup de fonds ont été injectés te teewul ni ndaw yi duñu amuñu espoir bale dañuy gën a dem loolu mooy loolu mooy wane échec orientation bu ñu def orientation boobu noonu nag mooy lan mooy xoolaat suñu politique de jeunesse mm-hmm. politique de jeunesse xoolaat ko nekkul toogaat si ay hôtel wala toogaat si ay béréb wax naa la sànq lu da lu lu nga xamante ne moom moo découlé lu ñu woowee stratégie de lutte euh, interministérielle de lutte la migration teewul ni loolu boo ñu ko defee ba léegi mbëkk baa ñu gën a bëri. Mhm. ce qui veut dire que rencontre yooyu noonu du man du euh, sama naataango bu nga tudd wala keneen ak keneen wala experts yi ñuy wax ñoom ñooy mbëkk ji déedéet ku feebar yow la ñu war a saytu mhm. mais du ñu jóg sa parent mu toog docteur bi ne moom lay consulter bu ko consulter du gis feebar si moom ñëpp xam nañ lu tax ndaw ji di dem ñëpp xam nañ la mooy cause yi la mooy conséquence lenn la ndaw yi soxla moom mooy agir soxlootuñu ay parole soxlootuñu ñi dem ay hôtel ñu ñuy jox ay xaalis yu bëri di ñuy jox période pour rien wala ñu jox ñu organisation ñu lekk wu mm. soxlawuñu loolu en réalité donc je pense que organisation wala kuréel bu ñuy wax yenn dañ ko war a def comme seen bopp comme la ñuy wax du ay màgget ñoom ñooy métti mm-hmm. ay jeunes ñoom ñooy jël gaal yi am nañ benn population bu jeune la population la plus active soixante douze pour cent sont bu chiffre bi évolué wu. Mm-hmm. gis nañ ne moins de dix neuf ndaw yi la ñu war a saytu ñoom la ñu war a càmbar te ndaw yooyu noonu lu ñu bëgg mooy nu ñuy def ba tecc. Mm-hmm. loolu rek la ñu ut. war nañu xoolaat système éducatif yi xam nañ ñu koy xoole war nañu xoolaat ndaw yooyu noonu nan lañu leen mën a téye si seen terroir waxuma sax lu ñu wooye avant phénomène exodoral ñu nekk seen gox seen gox goxaat judoo fa jàngee fa màggee fa ñëw tekki fa loolu la ñu ut tamit miroir wala mirage bi la ñu jaay à travers seen ay waa dëkk wala ñaan ñoo xam ne yéen a màggandoo et tout ñoom ñu jógee Europe réussir seen vie def deux ans trois ans ñoo commencé tabax et cetera yow tamit di nga am njort boobu noonu nekk kon war def kon kenn war naa mbëkki ji war war naa def par tous les moins pour jéem a dem mooy suñu rapport yi ñu waxoon mais encore une fois ce n'est ñëw di toog wala ay ay ay rencontre africaine wala nañ jëf kon loolu rek la ñu soxla. très bien monsieur Adama Mbengue amoon mbégteleel jokko ak yow tey ji ci suba ji ci suñu gan. di di rafetlu encore une fois di traiter benn sujet boo xamante ni c'est en rapport avec la jeunesse. te ay ndaw tamit di ko di ko animer ndaw tamit di répondre ci question yi. Mhm. di leen jaajëfal di ñaan rek. loo xamante ni solution la par rapport à cette migration la mhm. gën a jàppale seen groupe bi. gën créer de l' emploi mm-hmm. gën a gëm suñu ressources yi fi nekk mm-hmm. gën a am ay personnes yoo xamante ni c' est des personnes euh, modèles ñëw mettre leen de la euh, euh, jiital leen mm-hmm. jël koppar boo xamante ni dinañ leen ko jox pour accompagner leen si ñoom seen projet dafay tax ndaw yi ñu nga xamante ñooy génn ci école yi école de formation yooyu di def journalisme mhm. wala di def leneen ñoo mën a dugg seen groupe yu mel kon yéen mën a absorber loolu rek c'est des pistes de solution solution yi moom xam nañ ko te loolu buñ ko defee daal nañ ko am di ñaan rek euh, sponsor yi tamit di leen gën a accompagner merci beaucoup fàttali ni rek yow yaay njiital ADHA di action pour les droits humains et l'amitié ñu yendoog jàmm